en tant que pionnier ñu dajale woon fii ci Darou Moussi pour def le bilan pour weddi aussi ñi nga xam ni dañoo jóg ni victoire bii nga xamante ni moom la département de Kébémer am ñoom ñoo ko indi ma leen di fàttali ni ñoom avant ñuy ñëw ñun ñu ngi woon ci 58 pour cent muy Modou Diagne Fada bi nga xamante ni moo fi ñëw ak ñeneen ñoo xam ne bëgguma leen tudd peut-être leen parce que dama leen defal promotion waaye wax dëgg yàlla bi ñu ñëwee tey li ñu amoon ñun dafa wàññeeku ndax ku nekkoon 58 pour cent kooku ñëw nga am 52 pour cent Daaru Musi gi nga xam ne moo nekkoon sunu yaakaar ni ñoom bu ñëwee nañ fi indi ñu am fa 48 pour cent wax dëgg yàlla loolu euh, jot na ñu def le bilan ñoom responsable yëpp ñoom wu ñoo def bilan le coordonnateur départemental bi nga xam ne dafa tëju élection yi ñëpp di gis neen dafa tëju bu ñu ko woowee du wuyu ñu ko nee benn militant bëgg na démissionner wala génn na parti bi du dem seeti ko ñemewul def le bilan moo tax ñun ñu dajaloo woon tey ñun suñu bëgg Macky Sall suñu engagement ci parti bi dajale ñu ñu def le bilan gis nañu ne Kébémer voix yi yokku na vraiment Kébémer commune voix yi na Daaru Musti voix yi dañu diminué wu Idy 2019 moo fi gagné biir Sagata voix aussi euh, malgré que gagné nañu mais foofu voix yi nga xam ne moom la ñu fa doon am yokk na ndax Ousmane Cissé wàcc na fa def fa campagne ngumba ngeewul ku ne gis na ni fa coordonnateur bi dëkk muy coordonnateur départemental bi opposition bi moo ko te yooyu ay comportement la yoo xamante ni à l'avenir ñun dañu ko war a corriger ñun nag taxaw nañu comme ni ñu defoon ba samp le président Macky aussi ñu defaat noonu ba nga xamante ne parti bi yi nga xam dafa nar a dem ci loxoy opposition dans le département parce que suñu ci jógul loolu mooy am jeunes yi nga xam ne ñoom lañ doon àndal ñëpp fii tey dem nañu fekki Sonko président lan moo ko waral mooy ñi ñu fi jiite dañoo xeeb jeunes yi projet yi nga xamante ni moom lañuy defal muy DER bi muy leneen ak duñ ci accompagner les jeunes ñuy wax nag le président Macky Sall que malgré difficulté yi ñu dajale dajale ci campagne bi góor góorlu nañ ba gañe ko avec 52 pour cent léegi li ñu koy ñaan mooy na responsabiliser jeunes yi bu mu xool ñi nga xam ne dañoo rallier indi lu ñu ko dara mu jox leen poste yi parce que loolu tamit dafay metti na xool ci ñun ay jeunes lañ ay jeunes cadres lañu formé nañ ñu fañ ñu war a formé ñu ngi ci parti bi depuis 2008 di góorgóorlu di góorgóorlu bu baax a baax mu jox nu suñu cër xool nu bu baax a baax jox nu ci poste yi nga xamante ni moom lay séddale santage yuñu ko nag digaluñu ko danoo bokk ci bi rek.